Mor Diarra Dieng dama koy xaw a daw ndax. sëriñ son yi. da daa wax ne. gën mooy ñu koy ndax da nga soxla bi a déglu di ko war man bi lay jëfandikoo waaye di ko siyaar ci suñu bisu bu tedd bi borom sant nag ñun xam nañ li mu doon bokk ak bi rek doon na ko sëkk ndam. doon doon doomi soxna Diarra ndax ñëpp xam nañ ne Maam Diarra. lépp lu bàyyi ko ci noonu rek la war a lim bokk sëriñ bi doy na sa ko sëkkum cër waaye bu loolu lépp jàllee itam moo doon ku ragal yàlla ku fekkee yu ñëpp waaye dégg nañ ko doonoon itam borom xam-xam bu mag bokk ci ñëpp xam-xam ci jamono xam ngeen siiw na ne daana naafila bi seet alxuraan ab kàddu sëkk ci jàmm yàlla waaye doonoon koo xam ne itam jege ak sëriñ bi di ginnaaw bi leen yàlla boole nongo sëriñ bi bëgg ko lool àndak ak moom ci lépp nag ci yoonu mu feeñ ba ni yoonu mu feeñ ba ni suñu borom defee xar baax ci sëriñ bi nongu ko lool mosu ko ñàkk nongu ndax ci lépp ci koo xam histoire bu te xam ngeen ne lool ci mag ñi ñoo xam ne Serigne Touba gërëmoon na leen borom bi yabalaat leen ci moom ngir ñu liggéeyal ko mu gërëm leen kon moom Serigne Touba fonkoon na lool joxoon ko cër moom itam mu fonk Serigne Touba jox ko cër bi yàlla def ci moom Serigne bi nga xam ne yàlla suñu borom ko def kon ñoom yàlla moo tax borom saa waxtu waaye dama ci biir Serigne Touba ba ci biir ak njaboot sax loolu la cee saasu ci barke bu ah, xam ab cëram xam li mu doon ci yoon bi xam li mu doon gis lu mu xat-xat rek lu ko bàyyi ñëw ca loolu suñ tubaab yëpp itam fonkoon ko ngeen xamoon ab cëram xam li mu doon kon ñaan ci barke ñaan si bi nga xam moo ko dégg naa yi ñu wax ne si si ñu daa ko dégg mu ne su jamono yi sëriñ bi di réer mooy bi ñu wër bàkku tubaab bi nga xam daanaa am ay fan bu dugg si ñu xam ci moom dara buñ jaaxle ci moom lay ñëw bu dikkee mu gindi leen delloo si wax leen ñoom ñu war a jaar dégg naa yi ñu ne am na ci yoon yoo xam ne daa dajee taay bi ñëpp ñëw boo fekk ñëpp jaaxle ne xamatuñ ñu war a def mooy leen dama leen di yee rek ngeen xam ne kii leen fi dajale nekkut jëkkut ba dajale door xool lu mu leen di yore daa dem ba xam daa dem ba xam ni leen yor ba la loolu lañ war a jël ci xam ngeen ni itam li ci am yoo xam ne moom digg ba suñ bi daal neexutoo ko sax lépp di mbirum diir wax si waaye dama koy wax sax waaye nag dañuy ñaan ci barke ndax moom lépp luñ koy sëf rek ma mag ñi dañ daa wax ne eh, suñ bi daana ko wax ak nee na mag ñi dañ daa wax ne suñ bi rek kenn daa xamul lu mu doon waaye ak baax ak ragal yàlla xam-xam ci borom sax leen. alhamdulilah ñëpp di siyaare si bu baax. fedd suñ digg moom. wala bu yàgg bi. nga xam ne waxtu ne daana ñëw jug déplacé yow mu koy mën. waaye léegi nag yan bee tax. sëñitu ko ñoo war a di ko siyaare si. alhamdulilah di sàkku ci moom barke ak te gëm nañ ne itam jotaay bi mu toll. lu mu toog rek borom kër yi daaw ko ci fekk. alhamdulilah barakallah.